أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom ngi ñaanal sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala bi iznillah ñuy jël tey ñeenti aaya 131 132 133 ak 134 tollu ba tey ci suratul nisa ñeenti ay mbokki jullit yi sunu borom subhanahu wa taala dinti jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy alwasiyatu bi taqwa wa zalika bi tarki shirki wal maasi baada al iman wa amalu saalih sunu borom subhanahu wa taala ci aay yi nekk sunu kanam mu ngi ciy dénk ragal yàlla am ngeen ragal yàlla mooy ndénkaana ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi ragal yàlla ku ko am sa àdduna baax na sa àllaaxira baax na ku ko ñàkk texee di nga àdduna kuy texee di àllaaxira nga ci ragal yàlla la mbir yëpp di baaxee ci ragal yàlla la doomu aadama di defaroo ndax ku ragal yàlla lun la jiital mu baax waaye ku xamul yàlla lun la jox mu yàqu moo tax mu ne alwasiyatu bi taqwa yàlla nuy dénk ñu ragal ko ragal yàlla nag bëri na luñ koy wax sunu làmmiñ yi waaye li muy tekki rek mooy defal lim la sant bàyyi lim la tere loolu lay tekki waaw baatu ragal yàlla li muy tekki mooy defal lim la sant bàyyi lim la tere benn boroom xam-xam dafa dégg benn waaye naan aouzu billahi min ashaytan rajim mu ne bàyyi li mu moom soo bàyyee li mu moom rek nga mujj waaye munoo nekk di wax aouzu billahi min ashaytan rajim ba pare li seytaane moom nga koy xëccoog moom kon yàlla nuy dénk nu ragal ko nan lañ koy ragalee mu ne wa bi zalika bi tarki shirk bàyyi bokkaale ku bëgg ragal yàlla na bàyyi bokkaale bokkaale mooy boole yàlla ak dara wala ak kenn jël li yàlla moom jox ko keneen wala leneen loolu mooy bokkaale loolu nag ku ko def sag ragal yàlla dàqu na kon mënatoo am ragal yàlla beneen bi wal maasi ak ay bàkkaar mooy yàlla ku bëgg ragal yàlla ginnaaw bokkaale dafay bàyyi mooy yàlla mu góor góorlu fexe ba sax ci jaamu yàlla topp yàlla bàyyi ko mooy noonu la doomu aadama di amee ragal loolu nag lan moo lay dimbali ba nga génn ci bokkaale bàyyi mooy yàlla mooy baadal iman wala amalu saalihaat ginnaaw ba nga amee ngëm di góorgóorlu ci jëf yu baax yi ñaari mbir yooyu ngëm ak jëf ju baax mooy tax nga bàyyi bokkaale ak mooy soo bàyyee bokkaale ak mooy loolu yóbbu la ci nga am taqwa ragal yàlla googu yàlla ñépp la ko sant yàlla sant na ko yonent yi sant ko jullit yi amul ku nekk ci kaw suuf ku yàlla waxul ragal ma ndax yàlla wax na yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum foofu ñépp dugg nañ yéen nit ñi ragal leen seen borom bu dee ñu gëm yàlla yàlla wax na yaa ayyuhal ladina amanu ittaqullah yéen ñi gëm yàlla ragal leen ma bu dee yonent yàlla wax na yonent bi yaa ayyuhan nabi ittaqillah ñi ragal yàlla seen jëf la yàlla di nangu ku ragalul yàlla loo def yàlla du ko nangu innama yataqabbalu llah min almuttaqin ñi ragal yàlla la yàlla di nangu seen jëf ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal inna allaha maa almuttaqin ala nee na ñi ma ragal la àndal ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna firdaws saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawat wal ard uiddat lilmuttaqin ñi ragal yàlla ñooy jéggi siraat thumma nunajji allazina ttaqaw wa nadaru zalimina fiha jisiyan ñi ragal yàlla ñooy jéggi siraat ku ragal yàlla boo ñëwee siraat da ngay pëttax ragal yàlla moo tax yàlla sant ñu ñu jaamu ko suñ jaamoo yàlla rek am ragal yàlla yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun koor li tax yàlla sant ñu ko mooy ñu am ragal yàlla yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun tabaski li tax yàlla sant nu ko mooy nu am ragal yàlla lan yanaalu llahu luhumaha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum li tax yàlla sant ñu aji màkka mooy pour ñu am ragal yàlla fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa kon ragal yàlla ngokk alquran bi li tax yàlla wàcce ko mooy pour ñu am taqwa xuzu ma ataynakum bi quwa waskuru ma fihi laallakum tattaqun ragal yàlla ngoog aaya yi nekk sunu kanam moom lañu yàlla di dénk ñaareelu ci aaya yi mooy xina allah taala an saairi xalqihi mbokk yi sunu borom dafa doylu nit ñi léeg-léeg nga dégg benn baat ci Sénégal ñu ne li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk loolu baatu kiifir la ku ko wax rek génn nga ci islaam lu tax yàlla dafa doylu nit ñi asamaan ak suuf nit ak jinne ak malaayika sunu àndoon ba gën a jub yonent yàlla muhammad du yokk ci nguur yàlla gi dara sunu àndoon bon ba gën a bon iblis du wàññi ci nguur yàlla dara in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen defee lu baax seen bopp ngeen ko defal man yàlla du man ngeen ko defal waaw waaw ku def lu baax ku ne su fekkoon ne mbokk yi ci Sénégal gi dong su nit ñi defal lu baax yàlla daan kon heure bi heure bi fu muy nekk du ngeen ma todd kon daanu na natt leen ko nag ci àdduna bi waaye yàlla du mbaaxu nit ñi moo tax mu nekk yàlla du seenu mbon moo koy daaneel déedéet allahu akbar allahu akbar jalla jalaaluhu sunu borom yàlla ginan gani anil alamin dafa doy lu nit ñi waaw xoolal tey fii géejawaay ñi fii ni ñu toog ñi julli timis ak ñi julliwul timis ñu ëpp kuy tont voilà kon suñ ne woon yàlla tey ji bu gaa yi julliwul timis mu daanu kon xanaa asamaan bi commencé na bërëg rëg rëg rëg rëg rëg waaye yàlla du kooku mbaaxu nit ñi du moo koy yokk mbonu nit ñi di moo koy wàññi moom jalla jalaaluhu sunu boroom xina allah taala an saairi xalqihi moom dafa doylu mbindeef yi waaw fa la na doylu lanu nekk ci mbon nag moom la gërëmul moom yàlla wala yarda li ibaadihi al kufr nit ñi la ñu nekk ci mbon neexu ko bëggu ko waaye buñ ci nekkee dëgër bopp nekk ci du ko wàññi dërëm moom yàlla jalla jalaaluhu loolu dañ koy jàng ci aay yi nekk suñu kanam kon suñu pas-pas nan ko sàmm ba kenn bum nu wax loo ne yàlla kat man li may def su neexul yàlla na yàlla bàyyi ah moo man nii laa mën a ba nga yaakaar ne waa jooju dañoo war a ñëw di négocier ak moom naan ko non c'est que xam nga rek il paraît ñun dañoo daada ku mere yàlla coppeelul ci étage nga daanu nga xool koo koy def yàlla nee na man lam yarda ala qadaa'i walam yasbir ala balaa'i képp koo xam ne ci yéen man yàlla li may def neexu la natt yi may tege mënoo koo muñ mu ne génnal sama suuf asamaan doxal ci beneen suuf demal nga jaamu beneen borom bu dul man aywa bismillah ne nit mere yàlla rek seen oto di daw mu plongé ci kanam oto bi mu xool loolu kooku mu mere lan la yàlla moom mu mere lan la koy wàññi ndax day tax asamaan bi wàcc ndax day tax suuf si wëlbateeku ndax day tax géej gi débordé sunu borom jalla jalaaluhu mu ngi jàngal ci aaya yi nekk sunu kanam qudratullahi taala ala zihabi nnaasi kullihim wa itiyaani bi gayrihim sunu borom mu ngi jàngal ci aaya yi ne su ma neexee man yàlla jalla jalaaluhu ma jële leen fi indi fi ñeneen wax na ci alquran wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum summa la takunu amsalakum man yàlla bu ma neexee ma jële leen fi ma indi fi ñeneen ñoo xam ne la ma leen sant dinañ ko def te ñooñu du nu nuroog yéen ubbi leen ñaari bunt yi kon yàlla ci coobareem ak kattanam ak mën-mën bu ko neexee léegi mu jële fi nit ñi indi fi ñeneen ndax nun noo fi njëkkoon a nekk ah ayna aadam ana aadama anay doomam ana siis ana nuux ana ibrahim ana ana ana ñooñu ana ñooñu kataba almawt ala alxalq fa kam falla min jaysin wa afna min duwal sunu borom moo bind dee ci jaam yi waaw day changé nit ñi par nit ñi waaw yuxriju lxayi min almayit wa yuxriju lmayit min alxay jalla jalaaluhu su ko neexee mu jële ñu fi léegi indi fi ñeneen moo tax ñu nekk ci kaw suuf su yàlla diglee dara ñu ne ñoom dañ koy tere dañuy sonal seen bopp yàlla santaane dara yow ngay da nga ko fi tere bu ko fi kenn def wala dama koy tere yow da nga def sonal sa bopp bokk jullit yi abu jahlin lan la doon tere kaaba ga Firawna lan la doon tere Namrud lan la doon tere ndax ñooñu liñ doon tere jóge na fi sunu benn sëriñ nee na su ma duggee ci kaaba gi ma dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar maamu kee la mu ne su ma déggee loolu ma ni ah Abu Jahlin fen na de lii la bañoon mu jëm kaw tasaaroo na tey ci kaw suuf kuy tere daal na nga tere lu yàlla tere ci ngay am ndam kuy santaane santaane lu yàlla santaane ci ngay am ndam waaye lu yàlla tere lu yàlla tere nga ni def leen ko lu yàlla bëgg nga ni bàyyi leen ko da ngay indi sama problème waaw da ngay indi sa parce que kenn du ko bàyyi munoo ci dërëm ah mu ngoog waaw sunu borom nee na ñeenteel mooy wujubul ixlaas fil amal li nu war nag mbokk yi mooy nu sellal sunuy jëf sellal jëf ci wujubul ixlaas fil amal lillahi taala képp kuy def defal ngir yàlla waaw ku bëgg am tiyaaba ëllëg na fekk li ngay def li ngay wax li ngay jëf li ngay dox na nekk ngir yàlla wallahi soo defee te defoo ngir yàlla da ngay perte soo waxee te du ngir yàlla da ngay perte soo joxee te du ngir yàlla da ngay perte moo tax ku mu mun a doon ci ñun pour nga am yàlla amal ixlaas sellalal lu garaaw la nag lu jafe la naka la ñuy def ba sellal naka la ñuy def ba sellal nekk ci ñun kooku xeex la laaj ak sa bakkan góor-góorlu la laaj pour nga am sellal ndax sunu borom moo nu ko sant wa xurmatu talabil axira bi talabil dunia dafa araam ci ñun ñuy ut àdduna ci kaw alaxira dafa araam ci ñun ñu jël àdduna teg ci kaw alaxira maanaa àddina gënal nu alaxira wala araam ci ñun ku mu doon ci ñun sellalal nga fexe àllaaxira gënal la àdduna parce que àdduna moom yàgg-yàgg kër guy jeex la àllaaxira du jeex mukk mukk mukk mukk mukk mukk àllaaxira moom dañuy dañuy jàkkaarloog waa aljanna jàkkaarloog waa safara ne leen xuludun bila mawt sax leen dootu leen dee gis nga keroog bu ñuy jàkkaarloog waa safara naan leen xulud bila mawt la ilaha illallah keroog bu fekkoon ne ay tempa la ñuy déggee nit ñi danañ yuuxu ba seen tempa yi tëx ndax du ñu bëgg dégg baat boobu moo tax dañuy wax maalik li gën a metti ci àdduna mbokk yi li gën a metti ci àdduna mooy lan dee mooy dernier degré mettit dee mooy musiba bi gën a rëy yàlla sax musiba la ko tuddee musibatul mawt bu ñu demee alaaxira dernier degré ci mettit moom la nit ñi bëgg mooy dee dañ naan Malick ay waay wool ñu sa borom munoo fekk nu fi rey nu génn nu wala fii ci ñun kan moo bëgg dee bu demee alaaxira dañ koy bëgg ndax moom mooy jàmm yi alaaxira musiba ba fa gën a ndaw mooy dee àddina musiba fi gën a rëy mooy alaaxira musiba bi fa gën a ndaw mooy dee kon du bee moo tax dañ naan waa safara dañ naan ey waay yàlla kaay rey nu ndax nu génn fii allahu akbar fii moom lu ñuy wax bu nu dee suñ demee alaaxira ñu ne nanu dee kon du benn danañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko danañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko kon ñeent mbir yi ñu wax mooy li nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal ci ñeenti aay yi nekk sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يسأ يذهبكم أيها الناس ويأتي ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا سنين خولي آية بي دي في جيس يالا بامتو في نيت مبير نيت مبير يوي لان لا walillahi ma fi samawati ñaata yoon la ci aaya bi ñetti yoon lu tax lu tax yàlla baamtu ñetti yoon ci ñeenti aaya yi di wax ne walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard salasa marat fal jawaabu annahu taala لما ذكر أن الزوجين إذا تفرقا بعد مصالحة على التقوى يغنيهم الله الله أكبر ngeen ay passé sunu ginnaaw yi ñu mujjee jàng sunu borom mu ngi nuy wax foofu ne ñaar ñi doon ànd góor ak jigéen jëkkër ak jabar ñoom ñaar dem nañu ba mënatunoo ànd sunu borom ne ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo way yatafarraqa yughnillahu kullan min saati ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo kenn ku nekk ci ñoom ñaar yàlla mun na laa wërsëgal beneen yoon sa mbir yëpp baax sa mbir yëpp yaatu loolu moo tax sunu borom mu répété leen ne pour ngeen gëm loolu yéen ñaar ñii xanaa xamu leen ne man maa moom asamaan ak suuf kon man mi moom asamaan ak suuf yow ku góor ki bul yaakaar ne boo bàyyee ku jigéen kii rek da ngay dee yow ku jigéen ki bul yaakaar ne ku la ku góor ki bàyyee nga dee man yàlla maa moom asamaan ak suuf man yàlla kenn ku nekk ci yéen ñaar mën naa ko wërsëgal leneen wala keneen ku dul moroomam léeg-léeg nga déggu ne ah man kay boo gisee ma jàpp sëy bi damay bañ bu ma tasee dootuma amaat jëkkër bu ngeen koy dégg léeg-léeg nga dégg borom kër gu ne ah nga léegi man mag laa boo ko fi bàyyee dootuma am keneen booy yatafarraqa yughnihimullahu min fadli su ngeen tàqalikoo yàlla nee na man may indi comme mënatu leen nekk du ngeen fi nekk ci kër gi rek bàkkaar yi di bëri ngeen di rayante di tojante bopp di tamante dëmm ku nekk hijra moroomam gàddaay ko kon ànd bu rafet wala tàqalikoo mu ne yàlla nee na burhanun lii day wane ala zalik bi anna lahu ma fi samawati wa ma fi l ard yàlla dalay wan ne yéen ñaar ñii man yàlla maa gouverner asamaan ak suuf waaw man yàlla mi man moom mën loolu man yàlla subhanahu wa taala yéen ñaar bu ngeen àndee ci njëkk xali ngeen taqalikoo man yàlla mun naa leen wërsëgal ixwatal iman walillahi ñeel na yàlla yàlla mooy ki moom maa lépp loo xam ne fi samawaati mi ngi ci asamaan yi juróom-ñaar wa maa fil ardi ak ci suuf yi juróom-ñaar xalqan wa milkan wa tasarrufan wa tadbira lépp yàlla la yàllaay boroom mbindee fii ci asamaan ak suuf balaa kay fu nekk yàllaa leen moom nit ñi fu nekk yàllaa leen moom jinne yi fu nekk yàllaa leen moom njanaaw yeeg fu nekk yàllaa leen moom rab yi fu nekk yàllaa leen moom lépp lu nekk ci asamaan lu mu mën a doon nekk mbindeef wala mu nekk nguur wala mu nekk lu mu mën a doon loo xalaat sunu borom subhanahu wa taala moo ci coobarewu lu ko neex waaw lu ko neex la ciy def ak mbir moomu fu mu mën a nekk sunu borom moo ko moom lu ko neex la ciy def kon loolu na leer ci ñun amul ku moom asamaan amul ku moom suuf amul ku moom jaam ñi léeg-léeg nag nga dégg ay ay déborde ñun ay nit yu débordé naan diw mooy borom jaam ñi jaam ñi yàlla moo leen moom kooku ci naan borom jaam ñi boo dégloo tuuti wala nga dund tuuti nga dégg deenam ah léegi kon jaam ñi fi des ku leen di dundal dafay bàyyi jaamam yi ah kon jaam ñooñu mu moomoon ana ku leen di dundal mbokk yi kon loolu wax joo xam ne njuumte la kii borom jaam ñi mooy kan allahu subhanahu wa taala moo tax mu ne walillaahi ñeel na yàlla yàlla mooy ki moom maa fi samawaati lépp lu nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak lépp lu nekk ci suuf si waaw waaw loolu nag pour nga xam ko xalqan mbindeefi wa milkan ak moomeelam wa tasarrufan moo ciy soppeeku nu mu ko neex wa tadbiiran moo koy surveiller di ko dérouler nu mu ko neexee su neexee guddi guddi ñëw bu ko neexee bëccëg ñëw bu ko neexee mu xiin mu taw bu ko neexee mu xiin du taw bu ko neexee mu tàng bu ko neexee mu sedd bu ko neexee guddi gi yàgg bu ko neexee bëccëg yi gaaw bu ko neexee mu ngelaw bu ko neexee loo xalaat rek lu ko neex mu def ndax mooy ki ko moom ndax day ngelaw nga ne yàlla lu tax ngay ngelaw tey wala muy taw nga ni yàlla tax ngay taw man maa ngi nii tey dama war a ngént maa ngi wax sama xarit yi ngay taw ah lu tax yàlla tey ngay taw dama war a takk jabar ah yenn saa yi nga dégg ñu ne xiin na nga dégg ku ne suulal xorom du taw bu doon xorom dina tey taw bi kay kon taw bi du taw géej ndax géej daa saf saf wala ah wala géej fuñ xorom si jóge du ci ndox mi waaw kon kay dëgg-dëgg yaa doomu aadama mooy ku réer moo tax doomu aadama lu ne lay def lu ne lay def lu ne isaa nga dëkk ñu ne dafa xiin diw daal di téye taw bi du ko téye laa la wax allahu akbar téye taw nit ñi sànku nañ waaw diw dafa bëggoon dee diw guddal fanam diw dafa bëggoon nangam yooyu wax la ko yoo xam ne teguwul fenn te réer la te da nga koy dégg fii ci dëkk bi loolu moo tax nit ñi di nit ñi di bokkaale ndax dañuy jël lu yàlla moom ñu jox ko nit bokk yàllaa moom asamaan yàllaa moom suuf waaw ak li ci diggante bi waaw waaw gis nga Moussa premier jour bu mu recevoir bu ko bi ko Firawna recevoir Firawna di ko laaj muy tontu Moussa munu ko wax xam na ne Firawna mi day wax mooy yàlla lay wax Firawna ba daal di posé Moussa benn question ne ko man rabbu samawati wal ard mu ne ko rabbu samawati wal ard wa ma baynahuma in kuntum muqinin borom asamaan mooy yàlla borom suuf mooy yàlla di ci diggante bi yàllaa ko moom Firawna fu mu nekk ah ci diggante bi nekkul ci biir suuf si di nekkul ko asamaan di da ko bëgg a wax ne yow mii yàllaa la moom mu ne mu ne ko bal rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma ki moom asamaan moom suuf ak li nekk diggante asamaan ak suuf su kenn nekkul asamaan nekkoo suuf ci diggante bi nga nekk ñett yi nag su nee yàllaa ko moom kon après jeex na di kon nga xam ne yow dugg nga ci biir voilà mu ngoog gis nga pourtant mënoon na ko ne yow mi yàllaa la moom doo tus doo yàlla waaye gis nga yonent yi yàlla mooy def ci seen làmmiñ xikma dan lay wax duur la bolde bi te seen loxo jógul waaw waaw yàlla ne wala qad ca dëgg-dëgg man yàlla wasay naa dénkaane naa kan ñan laa dénk allazina gaa ñi nga xam ne uutul kitaaba maa wàcce woon ci ñoom ay téere ndénkaane yàlla lan la ahit naa ilayhim bi zalika dénkoon naa leen waxoon naa leen sàmmnoo woon naa leen ñan ñi leen fi jiitu woon allazina utul kitab ñi nga xam ne dama leen joxoon téere mooy ñan yahuud yeeg nasaara min qablikum ñi leen fi jiitu woon wa iyaakum ak yéen ñii dénk naa leen ma wax leen lan an ittaqullah na ngeen moytu yàlla fu ngeen nekk na ngeen ko ragal gis nga lii mooy wasiyatul awwalin wal axirin dénkaane ñu njëkk ñaak ñu mujj ñi lan la taqullah ragal yàlla ñi fi ñëwoon démb lan lañ leen dénk ragal yàlla moo tax bépp yonent ci alquran boo demee ci saaram yonent yëpp nag bi leen yàlla yónnee suñ ñëwee li ñuy wax ani abudullaha wa atiuni yonent yëpp nu Muusa mu ñëpp ku ñëw rek ani abdullah wattaqu ragal leen topp leen yàlla ragal leen yàlla jaamu ñoom ñëpp loolu la ñuy wax mboolem yonent yi moo tax yàlla mu ne yéen ñii ak ñi leen fi jiitu woon dénk naa leen lan laa leen dénk mooy moytu yàlla ak taqwa mooy moytu moytu ndiku ragal yàlla moytu def lim la sant bàyyi li mu tere wallahi li mooy ndénkaane gi wala xat ca dëgg-dëgg man yàlla wasay naa dénkoon naa allazina gaa ñi nga xam ne uutul kitaaba joxoon naa leen démb ay téere mooy yahud yeeg nasaraan yi al yahud wan nasara uutu mooy mooy ñoom ñooy ahlul kitaab min qablikum ñi leen fi jiite woon ndax ñaar ñoo ñooñu fi jiitu wa iyaakum ak yéen ñi dénk naa leen fu ngeen mën a nekk an ittaqullaha na ngeen ragal yàlla allahu akbar waaw waaw ragal yàlla moom laa leen dénk amul leneen moom laa leen wax mu ne wa in takfuru bu ngeen weddee nag lànk na ngeen yëg ne fa inna lillahi ñeel na yàlla gis nga maa fi samawaati li ci asamaan yi wa maa fil ardi ak li ci suuf milkan wa xalqan wa abidan wa tasarrufan wa tadbira kon su ngeen ko jaamul du ko wàññi dara ah dama leen dénk ngeen ragal ma su ngeen weddee lànk bañ a def loolu man yàlla am naa ñeneen ñu ko def loolu dong la la bëgg a wax borom kër gi yenn saa yi mu woo doom yi kaay leen ngeen def dara nga gis kenn di ngand ngandalu mu ne ko demal bàyyil xam nga ne booba ña ñeneen ñi dinañ ko def waaw borom kër gi yenn saa yi mu am ay soxna mu woon leen ñoom ñeen ne dama bëgg nangam nga gis ku naan eh mu ne waa xoolal su ngeen bañee am na ñeneen léegi ñu koy def boo bañee togg ginaar gi léegi am ko ko togg waaw nga dégg soxna si ah kon xaaral ma togg ko ah kon nag comme demee na noonu eh nangam nangam ah mu ngoog wala fi nee nañ bu mbul bañee làmbaay nangu ah su ñuy bañee rek ñeneen nangu su ngeen lànkee bañ a def li ma wax wa in takfuru yéen ñëpp ngeen weddi ngeen nekkote na ngeen yëg ne fa inna lillahi yàlla moom maa fi samawaati la ci asamaan yi wa maa fi l ard ak li ci suuf am na ñu fa nekk ñoo xam ne bu leen santee du ñu bañ d'accord ngeen wala ah waaw ku bañ a jullil yàlla léegi nga gis am picc mu taxaw di julli wala ab rab bu taxaw di julli wala ab xaj sax bu taxaw di julli billaahi soo bañee yàlla nga lànkal ko wallaahi nga gis lu ko ko ñëw di def léegi léegi ci ay minutes yu ndaw moo tax yàlla mu ne bu ngeen bañee rek ñeneen nangu wa in takfuru bu ngeen weddee lànk na ngeen yëg ne man yàlla loolu ngeen bañ man sonaluma de ndax fa inna lillahi man yàlla maay ki moom maa fi samawaati li ci asmaan yi wa maa fi l ard ak li ci suuf wa kaana allahu yàlla musta dañ xaniyan di doylu xamidan di ku ñu sant wa kaana allahu yàlla musta dañ dafa musta nekk di sax xaniyan di ku doylu waaw dafa doylu mbokk yi lan ngeen yaakaar ne ñun moom lan am ba war cee may yàlla tuuti wax leen ma ko wax leen ma ñun tuuti lu ñu bëri la ba war cee may yàlla waay wax leen ma ko rek tuuti rek loo xam ne yàlla moom amu ko ba ñun ñu war a coppati ci loolu ñu may yàlla lan la ah xanaa mbon xanaa ak mbon wala mën nañ cee may yàlla moom ndax yàlla moom amul lu bon waaw mais leneen amul xanii allahu akbar walillahi xazainu samawat wal ard walillahi mirasu samawat wal ard wallahi borom bi subhanahu wa taala nee na ëllëg yowm alqiyama wa samawat mutwiyatun bi yamini asamaan nu mu toll xam ngeen ko yàlla neen dama koy lem ngëpp ku nii ak ci sama loxo ndey joor allahu akbar asamaan la wax de wa samawaat asamaan yi du benn de juróom-ñaar yëpp yàlla nee na dañ koy mutwiyaat dañ leen di lem ma ngëpp ko nii bi yami nii sama loxo ndey joor yàlla du suñ morom de kon nag ngeen dégg mu naan wa ma qadarullaha xaqa qadrihi wallahi màggalu leen ma nu ngeen ma war a màggalee man wal ardu qabat qabdatuhu yowmal qiyaam mu ne suuf si dama koy ngëpp yowmal qiyaam dama koy ngëpp ah. waaw waaw waaw. mos di di di firi kii boobu.
ay boobu. waaw.
mooy tànk boo xam ne dara du fay.
ah.
suuf suuf.
dëgg la. xoolal suuf si ni mu toll. ñu ne yowmal qiyaam yàlla daf koy ngëpp te dégg nga lu mu wax léegi. xabda mooy ngëb goo xam ne boo ko dankee amul lu ciy feeñ kon yàlla mooy kan bu lemee asamaan ngëb lem suuf ngëb sardawat laa ilaha illa allah imagine leen étage yeeg dex yeeg géej yeeg àll yeeg nit ñeeg ba pare mu ngëb ko te dara feeñu ko te amul sax kuy wadd di lang naan comme ni ngay danke ni ngay danke pepp ceeb nga gis benn ceeb bu déborde jaar ci sa diggante ñaari baaraam yi ndax niinaay bi moo koy génne mu moom mu génn ne la dooma lekk de maa ngi rëcc naa yàlla moom bu ko dankee dara du rëcc lépp ah kon kooku bu nee xani damaa doylu dama leen a doylu wóor na wala wóoru wallaay wóor na allahu akbar bu yàlla waxoon suuf sax wala ñaar yëpp la wax asamaan ak suuf su ko ngëbee nag ba ne ko këcc tëye ci ay at yu ko neex moom yàlla mu ngëb ko noonu ci coobareem moom yàlla ak ci xam-xamam mu ne ayna al muluk ana buur yi ayna abnaul muluk ana doomu buur yi ayna al jababira ana bandi yi wa ayna abnaul jababira ana doomu bànd yi allahu akbar mu ne limanil mulkul yawm waaw tey moom kan mooy buur kenn du tontu amul kenn ngi tontu moom yàlla mooy toog lu ko neex mu ne lillahi wahidul qahhar lillahi ñeel na yàlla alwahidu mooy kenn xam ngeen lan mooy alqahar mooy notaakoon bi notaakoon xam ngeen not mooy lan notaakoon mooy lan ah allahu akbar na ngeen koy waxee le dominateur allahu akbar ah ay def ñu ne cour suprême loolu la ngeen dégg fi de ñu ne cour suprême nee na am nañ benn lan benn ëtt boo xam ne moo moo sut ñëpp kooku ëttum yàlla la kooku péncum yàlla la keroog ñëpp taxaw ci kanam amul kenn kuy sol yére ku nekk laa taxfa minkum xaafiya ku nekk ni nga juddoo woon noonu nga ne cullum ci kanamu yàlla yaa Aysa dafa dégg lool rek mun a ay yonant waaw góor ak jigéen ci benn place loolu dina ñaaw de yonent bi ne ko Aysa bu keroogee doomu aadama dina tal leneen lu dul xool awraat keroogee doomu aadama dana tal leneen lu dul xool awra kër guñ la yee trois heures du matin muy tàkk safara si nekk partout ci biir néeg yi wër kër gi dëkkandoo yooyu bu ñu yeewoo ndax dañuy tal di xool awra waa kër gi tàkk ku génn ñu ne paa bi ndax waa kër gi loolu la ñuy tal lu ñuy tal lu ñu sauvé ñooñu ndeysaan ak situation bu ñu leen fekkee ak bu ñu génnee mooy rek nañuy génn ndeysaan wala yowmal xiyaam mu ne ko yowmal xiyaam mu ne ko su keroogee Aïcha mu ne ah waaw léegi xoola Aïcha di xalaat yowmal xiyaam naka la ñuy dajee góor ñi ak jigéen ñi seen awra di feeñ kon Aïcha bu ñëwaatoon tey ci àdduna mu gis dama ko ñu àllaaxira awra yi di feeñ allahu akbar kon yaa Aïcha lu muy wax yowmal xiyaam la wax de amul sol yére Aïcha ne yonent bi ci benn terrain góor ak jigéen dina ko waaw mu ne waaw ay yonent loolu dina doy waar rek Aïcha yonent bi ne ko Aïcha keroog doomu aadama ne tal leneen loolu xool awra yàlla wax na ko yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum inna zalzalata saa seyun azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin wa tadau kullu zaati hamlan wa tara nnaasa sukaara wa maa hum bi sukaara walakinna azaaba allahi shadid yawman yaj'alul wildaan allahu akbar liir day juddu daal di bi jaaw weex daal bopp ak sikkim te liir la de allahu akbar lu tax bis boobu la doomu aadama attanu ndax dafa rëy asamaan attanu ko suuf attanu ko montagne attanu ko dara attanu ko kon yàlla bu nee dama leen a doylu bu yeboonu gëm ko ku yaakaar na sa julli yi wala sa koor wala sa naafile yi wala wala wala wala wala yow yaa tax gouvernement yàlla di continuer yaa ngi nax sa bopp wa in takfuru bu ngeen weddoon yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw jinne ak nit ak malaaka na ngeen yëg na fa inna lillahi ñeel na yàlla maa fi samawaati li si asmaan wa maa fi l ard ak li ci suuf wa kaana allahu yàlla musta dañ xaniyan di doylu xamidan di ku ñu gërëm yàlla bu ngeen buñ ko gërëmul ñeneen ñu ngi koy gërëm wallahi alazim mbindeef yaa ngi koy gërëm ci biir géej ci jéeri ji ci àll bi fu ne mbindeef yaa ngi gërëm yàlla tabaraka wa taala allahu akbar waaw da ngay dégg mbott di wax di yuux nga defe ne danaan ngoo mi ngi sàbbaal yàlla nga dégg ginaar di sab mi ngi sàbbaal yàlla nga dégg xar di yuuxu mi ngi sàbbaal yàlla lu tax yàlla moo ko wa in min shay illa yusabbihu bi hamdi wa in min shay la wax wa in min shay xobu garab gi ngay gis sax muy blanché wu nga naan xobu garab bi lu muy def ni day sàbbaal yàlla yusabbihu lillahi ma fi samawat ma fi l ard al malik al quddus al aziz al hakim allahu akbar oh doomu aadama rek ak ak ak jinne ñooy lànk sàbbal yàlla waaye yàlla na wa in min shay wa in min shay rekk démb dama gis benn vidéo ci facebook bi benn cheikh bu toog ma cliqué vidéo bi laal ko cheikh bi di nettali ndeysaan nee na benn benn dëkk dafa am benn màgget bu fa nekk màgget bi daa chaque jour day dem jàkk chaque jour day dem jàkk chaque jour day dem jàkk ak a wuteeg sunu màggetu dëkk ñun sunu màggetu dëkk ñu ngi ci dam yi di dox doxal yow doxal rey naa la waaw rey naa la de doxal waay soo ba ngoon ñu ngi ci ñu ngi ci grand place dam yi màgget boobu moom bis bu nekk mu ngi ci jàkk yi benn jour mu bënn sàppe pre sàppe yi ci ginnaaw di xët di xët ba dem sàppe premier bi élimaan bi sëlmalee rek mu jox ko ñaari loxo ne ko damaa bëgg nga wax ma loo xam ne benn xeetu jaamu yàlla boo xam ne terminé moom rek laay defati dootuma sonnati imaam bi daal di jaaxle fi mu toog nee na parce que sóoraalewul woon tey jii dina am ku ñëw ci jàkka ji di ko laaj ak paa bi li mu wax dafa rëy ba nga xam ne man imaam bi kii lan laa ko war a jox ci jaamu yàlla loo xam ne dina ko dimbali rek bu ne sama xel daal dem ci hadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax ne kalimataani xafifataani ah kalimataani xafifataani ala lisaan ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر imam bi daan ne paa bi ñaari baat a ngi nii kalimataani ñaari baat yi xafifataani alal lisaan dañoo oyof tool tool ci làmmiñ bu leen làmmiñ di wax sax da leen di ñàkkal solo waaye ëllëg yow mal xiyaam bu ñu ko tegee ci balance daf koy daaneel waaye ñaari baat yooyu yàlla daf ko bëgg mu ne ko subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim del wax loolu foo toll rek del wax subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim góor gi génn jàkka ji commencé dugg këram commencé doomam yi ñëw leen ñëw leen ñëw leen kaay leen kaay leen doom yi toog kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmisan habibataani inda arrahman subhanallah wa bihamdi subhanallah azim góor ñi ñi yaakaar ne paa bi dafa dof fajar jot mu génn ci mbedd mi ku mu dajeel su taal yaa bu nay kalimataan dëkkandoo yi ku ñëw ku ko ganes yi paa bi mel ne rek paa bi daal daanu feebar ginnaaw ba mu ci saxee ay at ay weer mu feebar bu mu feebaree ñëw ko hôpital mu xëm weeru yàlla mu ngi xëm famille bi dañuy ñëw taxaw tiim ko ak docteur bi ñu xool mu ngi noyyi mais xamul fu mu nekk benn bis rek noonu famille bi ñëwee ak docteur bi ñu tiim ko la góor gi ximmi ko xulli ba di xool leen ñu xool ko góor gi góor gi daan ne ay na docteur docteur bi daw ñëw mu ne ko yaa docteur kalimatan xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmisan habibataan inda arrahman subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim góor gi daal di génn àdduna waaw ndeysaan man doomu aadama war a nekk ci lu baax ba dee fekk ko ci yaa docteur kalimatan xafifatan fan ala lisan waaye saqilatan fi lmisan habibatan inda arrahman subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim góor gi génn àdduna wala góor googu loolu ñu ko jàngal ni mu ko jëriñoo pourtant ni yàlla waxee ni yonente bi waxee hadis bi noonu la amee ñaari baat yi dañoo oyof tarap tarap tarap ci làmmiñ waaye nañ leen teg ci balance ngeen xool waaye ñaari baat la yu yàlla bëgg subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ñaata yoon lañ yonante bi wax ne ñaari baat yooyu bu ñu xëyee fajar nañ ko def téeméer yoon su ngoon jotee téeméer yoon nga xool tey gis koo xam ne li muy tudd Messi Messi Lionel Messi li muy tudd Messi moo ëpp li muy wax subhanallah wa hamdi subhanallah azim d'accord ngeen ah voilà mooy suñu problème waaye lu baax li bëri na fi trop wala góor googu moo tax yow soo lànkee bañ a jaamu yàlla suñ borom subhanahu wa taala ganiyun hamid dañ koo gërëm sant ko ñaata nit ñooy xëy di wax alhamdulillahi rabbil alamin ñaata ñaata sunu borom ne walillahi ñeel na yàlla maa fi samawaat li ci asmaan wa maa fi l ard li ci suuf wa kafa doy na billahi yàlla wakiila man yufawidu ilayhi l amra kulluhu wa yaqumu bi tadbirihi ala ahsani l wajh sunu borom moo méngoo lépp lépp amul leneen wa kafa billahi doy na yàlla wakiilan muy méngoo lépp lépp moom yàlla moo koy sottil ku ko jox sa mbir mu sottil ko ku ko dénk sa mbir mu aar ko waaw wa yaqumu bi tadbirihi ala ahsani lwuj ala ahsani lwujur sunu borom subhanahu wa taala lépp moom moo ko moom moom jalla jalaaluhu mu ne wa in yasa bu ko neexee yuzhibukum mu jëlee leen fi de ayyuhan naas yéen nit ñi wa yaati bi axarina mu indi ñeneen waaw waaw waaw mbokk yi Sénégal gii Sénégal gii démb xamuñu woon muuraay d'accord ngeen waaye tey jii yàlla indi na fi jëlee na fi ñi ñooñu muur yàlla indi ñuy muuru Sénégal gi sunna amu fi woon moo tax doomu aadama yi dañuy def erreur yu garaaw yéen saa ngi ko yéen seen diine bu bees bii déet suñ diine bi dafa xuur de beesul ndax sunu diine bi moo fi jiitu xaadir moo fi jiitu murit moo fi jiitu tijaan moo fi jiitu laayeen ndax Sénégal balaa yooyu nekk fi ñi fi nekkoon ay sunnit lañ tarixa yi ñoo ñëw lan moo leen di wan loolu tey su ma tuddoon ay kilifa ci ñii ma wax ñi ko fi indi ñooñu seeni wayjur ay lan lañ woon balaa seen tarixa yi ñëw kuy tontu El Hadj Omar Foutiyou moom moo dugal tijaan Sénégal bi muy ñëw lan la fekk Seydou Tall ya way juróom bu góor ak Adama Aysa way juróom bu jigéen ay lan lañ ay jullit ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoom ñoo fi indi tarixa yooyu léegi ñoom bi ñuy ñëw avant tarixa yooyu seeni way jur yi luñ nekkoon sunnit alquran ak sunna tarixa yi ñoo ñëw di tegu ci kaw alquran ak sunna ba muur ko ba kenn xàmmeetul alquran ak sunna waaw xool leen ma bu baax ngeen xalaat ci lii ma wax lan ngeen ci xam voilà lii mooy wax ci moo tax ku la ne seen diine bu bees bi déedéet diine bu bees bi septième siècle la ñëwoon bal dañ cee teg ay mbir ba mbir yooyu nëbb diine bi xam nga li gën a garaaw ci àdduna ñu ne muuraay diine bu bees la te mu nekk ci alxuraan yàlla mu ne yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatika wa nisaai lmuminin yudiniina alayhinna min jalabibihinna zalika adna fala yuzayna wa kana allah beneen aaya bi mu ne wal yadribna bi xumuurihinna ñu ne loolu dafa bees balaa may deere ngay julli jël sa loxo yi di ko teg sa dënn bi waaw loolu nekk ci Buxaari Muslim nekk ci Muwatta nekk ci Abu Daawud nekk ci Ibnu Maaja ñu ne dafa bees kon kay li ko fi jële kay moo bees ndax lii ma wax nii Sénégal kañ la fi islaam dugg kañ la fi islaam dugg islaam dugg Sénégal kañ la fi islam ñëw ah. onzième siècle. onzième siècle septième siècle la islam ñëw ci àdduna onzième siècle la dugg Sénégal ñaata siècle mu nekk ci diggante bi. cinq siècle. siècle mooy ñaata at. ah. kon kay fii balaa mbir mi dugg fi nekk na sebet bu doon soow la ñu ne nekk na zirik wala est-ce que sax zirik moo fi yegg si moo tax fii li fi nekk kenn xamu ko imaginel cinq siècle siècle lu muy tekki téeméeri xa at mooy siècle islaam jóge penku bi di ñëw di ñëw di ñëw ba yegg si fii kon bi mu fi yegg si lu mu fi fekk fekk na sunna diine bi jaxasoo sunni di ak chia yi ak mutasawif yi ak ak ak ak ñépp di reyante kenn xamatul mbir mi fu mu nekk lépp lëndëm moo ngi ne mu doog a yegg si fii nag ah trois heures du matin boo ci demee àll ba di taxan mat te yoroo tors yoroo làmp loo jël dugal sa saak kañ ngay xam ne am nga mat bët set mën ngaa fekk jaan ju lemu nga jël dugal ci saak bi mën ngaa fekk ay puubu àll ba yu wow puub yu wow nga def koy saak bi balaa ngay xam ne lii du mat bët set nga yow subhanallah lii laa dugal sama saak parce que bi nga koy taxan dafa lëndëm voilà kon il faut ñu ràññee ci ñiy wax ñiy wax ñiy wax beneen mooy fan yi li ñu xewal ci sa ci rajo yeeg télé yi di ko wax naan waaw ñun sunuy diine mag ñi diine la joo xam ne xamul jihaad wala diine jàmm la ndax yonent ndax yonent bi moom moom waa dëgg la yonent bi sax moom jihaad na waaye nag gis nga ñun fi sunu mag ñi ñun jihaatun nag ñoom te samp nañ diine kon ñoom ñoo ëpp yonent bi martaba xamante loolu laa ci dégg loolu loolu njuumte la loolu njuumte la te sax man nga ñu naan jihaatun jihaat nañ jihaat nañ de Sénégal dañoo jihaat ba tële ñi ñu rey leen ñi ñu jàpp leen ñi ñu def leen ay résidence surveillée ah sumbu jun gi fa lañ daan rangale imaam yi di leen rey di leen jëli di leen rey di leen tëmbal ci géej gi ba léegi Cheikh xamal la soo demee dëkkam duñ julli vendredi ndax dañ naan vendredi dina ñëw jiite ndax bisu vendredi lañ ko jël si woon waaw ñoom ne nañ ba la ñuy julli mu ñëw jiite leen kon moom dem na dina ñëwaat gis nga ah sa xamal la ñooro mu nga kon foog mbir yi mu leer suñu bopp ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a ànd ak lëndëm gi ñu bañ a ànd ak lëndëm gi ñu góorgóorlu diine bi leer suñu bopp diine bii nu yor benn diine kese la amul ñaari diine amul ñetti diine amul ñeenti diine amul fukki diine amul diine yu mag amul diine yu xale amul benn aaya bu ñuy jàng yàlla wax ci alxuraan yéen xale yi wala am na am na aaya yaa ayyuhal kibaar yaa ayyuhas siraar am na ci yéen haafis yi am na ci ah man de xëy na jàngaguma ko ndax nag dama mokkalul dana gaa yi mokk ak ñoom xëy na daje nañ ci sunu borom ne ayyuhan naas yéen nit ñi maa ngi leen dégal ne wa in yasa su soobee yàlla bu ko neexee wallahi kenn ci ñun du fanaan soobee yàlla kenn ci ñun du fanaan yuzhibukum mu jële leen fi yéen ñëpp ayyuhan naas yéen nit ñi wa yaati bi axarina mu indi ñeneen léegi wallahi alazim waaw bu ko neexee kenn ci ñun du yendu mu ne wa kaana allahu ala zalika qadir te yàlla nee na loolu ku ko mën laa ku ko mën laa man yàlla waaw yenn saa yi kenn moo lay wax waaye loolu moo wax munta nekk waaye yàlla moom wa kaana zalik ala allahi qadir yàlla nee na man lii ma wax su ma neexee léegi ma def su ma neexee ma jële leen fi léegi tout de suite ma indi fi ñeneen ñu remplacé leen waaw bis bu ne nga gis bàyyi dee doom juddu ñu ne ndeysaan nañ ko tuddee baayam moom de ginnaaw baayam la dee wala moom la tukulóor yi tuddee luuti luuti koo gis ci tukulóor yi ñu tuddee ko luuti mooy bi mu juddoo fekk fa papaam wala fekk fa yaayam ah xamoo ngeen loolu yéen tukulóor yi voilà loolu mooy luuti koo dégg ñu tuddee ko luuti bi muy judd fekk fa ndey wala fekk fa baay day judd ba pare ana ndeyam mu nga armeel yi ana baayam ma nga armeel yi dee na fekke wu kon yàlla bu leen nee bu ma neexee ma jëlee leen fi léegi ma indi ñeneen loolu ñu war ko gëm ndax ñun ñi ñoo fi nekkoon 1901 mbokk yi fii kan moo fi kan moo fi nekkoon 1901 yëkkati sa loxo waaw amu fi 1920 ku fi nekkoon bi ngeen yëkkati seen loxo 1930 ku fi nekkoon ci yéen est ce que 1930 am na ñu fi nekkoon wala amuñu fi da ngay dégg paa yi naan la 39 45 demoon naa ca guerre ba paa boobu doon la wax 39 45 nekkatu fi tey yàlla jëlee na ko fi indi fi ñeneen noonu la yàlla duñ fi jëlee ñu neen indi fi ñeneen ba bis bu koy soob mu xëy di tukkil àdduna kenn du fi yendu kenn du fi fanaan ñëpp faatu ndaw sunu borom a ngoog ndax mbir yi ci loxoom la nekk gis nga ni mu jeexale aaya bi moo lay wan ne yàlla loolu amu ci wa kaana zalika alallahi qadir man yàlla ku ko mën laa te mu ngi koy def yaa ngi koy gis an sa baay an sa yaay an sa maam an sa an sa an sa an sa an sa dem nañ li yàlla waxoon daawud ah malakal moo di ñëw jël si daawud daawud ne ko waaw lu tax mu ne waxu leen ma ko woon ma préparé mu ne ko daawud an sa papa mu ne ko faatu na daawud an sa yaay mu ne ko faatu na daawud an sa dëkkandoo diw mu ne dee na mu ne xamoon nga ne yaa ci topp wallaay xamoon nga ne yaa ci topp sunu borom ne man kaana képp koo xam ne yuridu dafa namm sawaaba dunia tiyaabay àdduna fa inda allahi sawaabu dunia wal axira yàlla moo moom yiwu àdduna ak alaxira jazaul amalu laha képp ku bëgg ëllëg yàlla fay ko mbirum àdduna na yëg na yàlla moom àdduna ak alaxira bu bu ko àdduna rek yitteel sawaabu dunia jazaul amaluha sawaabul axira jazaul amalu laha wa huwa aljanna fayu àllaaxira ak fayu àdduna du benn moo tax sunu borom di ñu tere ñuy wax rabbana atina fi dunya kese mu ne kooku wa ma lahu fi laaxirati min xalaaq lan la sunu borom bëgg ñuy wax rabbana atina fi dunya xasanatan waaye wa fi laaxira xasana qina azaban naar maanaam nit booy ñaan da ngay ñaan àdduna ak àllaaxira waaye am na ñoo xam ne àdduna rek yàlla may jabar bu rafet yàlla na njool na xees na am xaalis yàlla nag yàlla na yàlla nag ma yàlla nag ma dimbali ma dem ma dem ma dem ma dem tugal yàlla nag ma dimbali ma liggéey aduna kese aduna kese ngay ñaan alaxira nag alaxira ci la bokk de lii nga ñaan lépp bu la ko yàlla mayee ba mu dajaloo sa loxo après da nga ko fi bàyyi dem léegi nag bu fekkee ne yow ñaanoo woon alaxira nga ñëw alaxira nag ñu ne o aree àlla juude bole o are allah juuɗe ɓole kala ɗanniɗo yehi to allah nawori juuɗe ɓole to fay may dem na ci yàlla ay loxoy kese ku tukki ku tukki dem tugal def fa fanweeri at nga ñibbi sa wàcc aéroport naan saaka bi ma fa demee sama bagage yi foofu laa ko fàtte ñibbi si toog ay mbokkam lañ laa waa waaw doo demal fële sa sa ngane la du neex de wala sa ngane la du neex de tukki waa ci aéroport kenn gisul nga yor ba ay saako kenn gisul nga yor dara lu dul silet maa nga sol ak benn kilot ak benn dàll yaakaar naa ñi la jëli woon dañuy découragé wala ah kon nag nañ moytu dem alaxira ci ay loxoy kese yàlla na yàlla dimbali sunu borom ne na ngeen yëg ne wa kaana allahu samian basira wa kaana allahu na ngeen yëg ne yàlla musta dañ samian di dégg waaye basiran di gis mbokk yi bu nu yàlla ne musuma dañ di dégg di gis luñ ci war a jàng wa kaana allahu samian basira sayid xawaa rahimahullah nee na bu ngeen jàngee aaya bàyyi leen xel aaya fu ñu jeexee aaya sànq yàlla def ne man lépp laa mën aaya beneen bi mu nañu lépp maa koy wat aaya beneen bi ci kaw mu ne man yàlla dama doylu te dañ maa gërëm aaya bi mu tënkee aaya yi ñu doon jàng mu ne damay dégg di gis boo gëmee ne yàlla mu ngi lay dégg kon lan moo war a génnati ci yow benn xale bu góor nee na dama dugg ci marché bi di jënd nga fi ma sëggoon ma sigir gis xale bu jigéen bu rafet mu ne ma bëgg a xool rek benn aaya ñëw ne ma alam yaalam bi anna allaha yara mu ne ma wàcce samay bët ma jël sama saak ma génn marché bi samay rongoñ di tuuru ba ma egg sama bët ba ma egg sama kër su ma gëmmee aaya bi ñëw alam yaalam bi anna allaha yara su ma xoolee aaya bi ñëw alam yaalam bi anna allaha yara mbokk yi ku ñu boole woon ak ñaari gendarme gendarme yu toppale di la xool lan ngay def
jubal rek.
ah ku Macky Sall doon xool rek ñu def ko benn caméra bu la topp bu toog biir palais di la xool looy def ku may tontu dégg naa benn waaye dafa takk jabar dafa am sëriñam nag dafa bëgg sëriñ bi fi muy tëdd ci biir néeg bi dafa jëloon ngandum cadre mu def fa sëriñ bi mu takk jabar nag jabar ju bees ñëw muy seetal nag mu tëdd ci biir néeg bi rek mu siggi rek gis sëriñ bi mu ne sëriñ danga may xool de damay damay ceeg sama soxna mu daal di jël photo bi dëppandi ko mu ne buggul sëriñ bi xool ko waaye yàlla nag alam yaalam bi anna allah yara mu ne wa kaana allahu samian allah ngi dégg waaye basira yàlla bi mu yónnee Moussa lu mu ko wax demal àndal ak Haarun inni maakuma asma'u maa ngi leen di dégg maa ngi leen di gis ca demal allahu akbar kon ku ànd ak yàlla bu ragal wa kaana allahu samian basira mbokk yi loolu mooy darsu tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh